jërë ngeen jëf ci taamu bi ngeen taamu seen sit bii di wasaare am nañu mbégte ak kontaante jàkkaarloo waat ak yéen comme saa su nekk ni ñu koy defee tey nag ni ngeen koy gisee ñu ñëw seet si um, ndaanaan bu mag koo xamante ne nii Sénégal ñëpp war nañu koo xam ñu ñëw seet si ko fas yéene waxtaan ak moom ci yu bëree bëree bëri nag ndax kat ñu ma koy waxee chaque jour ñun waa wasaare seen mbégte mooy suñu yitte dañuy bàyyi rek wa euh, suñu yaay ji mu daal di nuyoo bu ko defee mu présenté wu ñu dugg si waxtaan bi yaa booy nuyu naa la fay naa la sama doom bu jigéen. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm sant yàlla. naa la bàyyi nga présenté wu mbokku internet wasaare yi. waaw maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. Mhm. bi yëpp nga këpp maa ngi leen di nuyu. Mhm. leen wax ne maman Fama Sène génnaat na. Mhm. d' accord maman Fama Sène xëy na ñi la ràññee ñëpp dañ la ràññee ci li nga xamante ne nii moo di seet ñu bëggoon xam seet bi rek naka la demee. seet bi ko jëlee kii sama ñaari maam sama wàllu kër baay sama kër baay sama kër ndey. sa kër baay ak sa kër ndey. waaw. Mhm. Mhm. d'accord seet bi dafa jékki-jékki ñëw ci mama Fama wala mama Fama day def comme yeneen seetkat yi ay jinne wala ñoo ko ñoo la feeñu. waaw man de jinne ñëwoon na ci man waaye sama seet bi moom sama seetu bopp la sama yaay ci boppam laa ko jëlee. sama yaay laa ko donne ci sama yaay laa ko donne. Mhm. juróom-ñaari pitaaw lu la ci waxaandu dañ. jaayaan ba wàcc bu taxee téye juróom-ñaari pitaaw bu la nee nangam ak nangam téye ko. waa ki sama yaay laa ko doon mm-hmm. mu génnee waatal ma pittaay bi nag ci biir xàmba yi jox ma ko mm-hmm. ba may pettaaw booba xale bu ndaw laa booba 15 ans laa am di boot sama taaw mm-hmm. ba suñu jonn yàlla tey maa ngi ci pettaaw yi foruma ko foraatuwuma ko waaw d' ñu gis ne euh, li nga xamante ni moo di peetaaw comme ni nga ko waxee da nga ko doon ci sa xam euh, ci sa yaay sa yaay ah. da ko doon def sa papa ni nga ko defu ko sama yaay ko daan def sa yaay ko doon def mhm. Mhm, mhm. mooy juróom-ñetti guy yi suñuy tuur waaw sama ah. yaay moo doon peetaaw waaw juróom-ñaar peetaaw yi lu mu la ci waxaan su ko jëlaan téye ko lu mu la ci wax fayee ko bor d' accord maman Fama lan moo waral juróom-ñetti guy yi juróom-ñetti guy mooy sama kër maam mooy sa kër maam. waaw. Mhm. mooy mbarjaa. Mhm. ca tuur ya. Mhm. soo ca demee loo ca bëgg de def ko ca. mbarjaak du guraw. waaw foofa laa dëkk. mooy juróom-ñetti guy yi. d' accord yaa booy gannaaw ba ñu xamante sosaan dégg nañu nga utiliser benn moom buy duguraw lan moo waral lool. mbarjaak boo déggee duguraw. foofu loo ma sànde ba fa duggee bu soobee yàlla yonent ba danañ lay euh, dalal. danañ la dimbali. ak lu mu manti doon danañ ko défense ci yow. Mhm. loolu moo indi li nga xamante ni. mooy ma jàkk waaw mooy seet gi itam. Mhm. seet gi maa ngi ko jëlee sama kër yaay. Mhm. sama yaay danaa la moom juróom-ñaari pitaay su ko téyewaan. lu mu la ko fayee ko bor. danaan jaay nag mais tuuree ko ko joxoon. waaw d' accord ñu gis ne sa yaay dafa daan seet comme ni nga koy waxee ñu gis ñu bëri ñoo xamante ni dañu nekk ci mbirum li nga xam ne moo di seet ñoom bu ñu amee genre ay doom bëgguñu euh, seen doom yi nekk ci li nga xamante ni moo di seet bi lan moo tax nga choisir métier seet métier am seet mi daf maa mooy sama métier man xaw ma dara lu dul lii. Mhm. damay boot sama taaw ba nga ni ci lii 15 ans ba nga ni ci lii. Mhm. mënumaa lit mënumaa woy mënumaa fecc lii mooy sama métier. Mhm. maman Fama comme ni nga ko waxee seet bi nga xamante ni doon nga ko ci sa waajur bu jigéen ñu gis na ñu bëri ñoo xamante ni dañu nekk ci mbirum seet dañuy bañ seen doom yi nekk ci métier bi nga xamante ni dañ ko yëngu yàlla yow lan moo tax nga choisir métier seet mi. ah métier seet moom laa xam boromi tuur laa tey dama ko doon ki sama deret la. Mhm. waaw moo tax ma nekk ci di ko liggéey. Mhm. ba ba nëgëni. Mhm. waaw maa ngi ci seet maa ngi ñaan. waaw ci lépp loo xam ne lii ñëw nga fii nag moom nan lañ la ko saafaraal. d'accord maman ñu gis ne maman tamit instant yi euh, maanaam euh, jëf-jëfam euh, du fi nga xamante ni moo di Sénégal ràññewuñu ko fi lu bëree bëri mais maman li muy tukki moo ëpp li muy toog ci dëkk bi lan moo waral suwaa bi ndax li am fi nga xam ne moo di bitim réew daa amul fi Sénégal wala. ah déedéet du sax ndax maa ngi ñaan bitim réew maa ngi ñaan Sénégal mm-hmm. mais waa bitim réew ñoom ñoo ma gën a soxla moom macha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que nekkul tamit ni la waa Sénégal ràññeewul bu baax loolu moo tax. ah waa Sénégal ràññee nañ ma fi am naa fii client mais waa bitim réew ci boppam li may liggéeyee seen liggéey bokkut ak fi ndax fii dañuy ñëw ma jox leen seen i garab. Mhm. waa bitim réew nag dama leen defar li ma leen defar dugale leen ko ci GP yi. Mhm. Mhm. d' accord maman ba tey dañuy ci seet bi ngay dem fi nga xamante ni moo di bitim réew est ce que tamit nekkul benn instant ni nga xamante ni seetkat yi bëree nañu ko Sénégal ku jug rek euh, téye sa leket wala téye sa ñetti xaam bu ne dangay seet loolu moo tax. nga taamu bitim réew loolu nga may laaj akamaa metti uh-huh. parce que da ngay gis koo xam ne kii day toog ba yàgg rek jëlub la yow. na mi ngi seet. te barke Seydina Mohamed bu dee seet rek la soo ñëwee ci maman Fama Sène soo jël soo ñibbi woon tey. bu mhm. mooma dinaa la wax li nekk si yow. Mhm. toog. Mhm. li ma am akama metti jëlul leket jël layu na mën ngaa seet. te say mbir. aka bari fi ne nii ci internet bi dëkk yi dëkk bi. loolu daf maa metti torop. mais ku nekk la ngay liggéey naa génn ji ma wax ak jaam yi. moo ma tax a génnaat waaw. d' accord da nga fas yéene daal wax ak ñi nga xamante ni maanaam doon ñu seet joxuñu leen ko ndax seetkat yu bëri bu bu ñu leen laajee dañ naan ay jinne ma ko jox ak ay rab ma ko jox yooyu. man de samay tuuri ndey ma ko jox. maanaam ndono la ci yow daal. man ndono la ci man. Mhm. du mën a jinne ma ko jox du mën a rab ma ko jox sama tuuri ndey moom ma ko jox. Mhm. waaw. Mhm. may boot sama taaw mu fees dell ki sama lal ma ñëw wax a sama yaay sama yaay na ma dangaa bëgg a jël dangaa bëgg a jël pitaaw yi. ma ñibbi. mu feeñuwaat ma ci guddi gi. Mm-hmm. ba set ma ñëw wax ko ko bu ne man de biig sax jox nañ ma ay pétaaw dama naa la ko jox. Mm-hmm. ma jël pitaaw yi pitaaw yi ba tey mi ngi ci biir pitaaw yi. Mm-hmm. pitaaw yi ndono la di pitaaw yi caaxaan. te mën naa ko tàll fu nekk. koñ bi yépp koo ci laaj faama seen lu wax ci pétaaw faye ko bor. d' accord kon bokk ak sëriñ yi nga xamante ne ni dañuy jékki-jékki nii rek daal euh, wut seen layu wut seen i petaaw daal di teg te lu ñu wax lu nekk dañu naan euh, tuur yee ma ko jox ak sëriñ yee ma ko jox ak yooyu. maman Fama Sène moom li muy d' accord maman Fama gis nañu benn concurrence boo ne nii mu ngi seetkat yi maanaam nit tey maman Fama bu waxee wax joo xamante ne nii leer na la ne wax ji dina am est ce que keneen du jug pour faqastal la si seetkat yi. waaw man de xam nga damaa xaw a sax nag toog fii ci sama néeg bii dëkk Grand Médine gii di wax naan mën naa lii te mënuma ko man dama ko rus. kon lépp la wax lu nekk day am. man damaa rus laal na man naa pitaaw yi te mënuma ko te nekk ci ñeent fukki at ak juróom ren si sama kër gi ci dama ko rus. Mhm. toog ba yàgg rek yëlëb sama lay bii rek na man na damaa petaaw. Mhm. man rus naa génn di gis sama waa dëkk bi. Mhm. man lii laa xam. ak boo génnan tey yore tey gi sa micro bi boo génnee mhm. dinañ la mère pharmacienne loolu rek la xam tani rek laa xam mhm. moom rek mooy sama liggéey waaw mhm. ah. d'accord maman Fama si tani bi la yem wala maman Fama dafa boole tani bi ak maye loo xamante ni day faj maman Fama lépp lay faj fii lépp lay faj comme la ak lan boo taxawee jigéen ju taxaw soo ñëwee fii dama koy faj maanaam jigéen ju mënul am doom mënta am doom ngay lijjanti sa place mënoo ca leen muy të soo ñëwee fii dañ la ñaanal say kayit. Mm-hmm. sa place dañ la ñaanal bunt bi mu ubbeeku. d' accord maman Fama gis nañ sëriñ yu bari yoo xamante ne nii bu ñuy faj dañ lay jox délai est ce que maman ci ñooñu la bokk. ah man dama joxe délai. doo joxe délai waaye dinaa loo xam ne lii di nga ma woo téléphone. dama jërëjëf. Mm-hmm. waaw ci mm-hmm. kàttanu suñu borom. waaw. maanaam eh, ñaar rek nga ñu limal ci maman Fama lim mën a faj de ndax ci ñaar yooyu la yem wala ëpp na yooyu. ci ñaar ma la limal. ah li may faj bari maa ngi ma ndomba gi maa ngi ak jaaro bi. d'accord maman Fama bu ñu déggee ci say biir wax dama yaakaar dama dégg ne ñaar rek nga fi ci ñaar yooyu la maman Fama yem ci li muy faj wala maman Fama am na yeneen yu muy faj. waaw xam nga itam nit a defal leen da nga a seetal ba pare. ah da nga koy seetal ba pare. xool li nekk ci yow ñu mën laa wax li nekk ci yow. Mm-hmm. waaye mënoo tëb rek di def nit ki di ko jox ak di ko faj te seetaloo ko. d'accord teyel micro bu baax. comme ça foog nga seetal ko génneel ko sarax. Mm-hmm. wax ko li ne ci moom. ak li ko war a faj. Mm. waaw. Mm. d'accord kon daal am koo xamante ne ni am nga jafe-jafe bu boo ñëwee ci Mama Fama aajom dina faju jafe-jafe yi la ñuy dindi fii ñun. jafe-jafe yëpp wala. ah jafe-jafe bu mu mënti doon da ba ñuy fii ñu ci mënee dara bu la seetalee danañ la wax lii ak lii ak lii. Mm-hmm. bu dee sarax yi génn sarax bi day génn bu dee noonu loo war a jox lan la koy jox. Mm-hmm. d' accord tey maman Fama bu ñu génnee ci li nga xamante ni moo di jaar jaar bu am solo bi nga xamante ni jaar nga ko ak li nga mën a faj yoo xamante ni am na solo barina na trop xam naa réew mi moom dinañu intéressé wu ci yow bu baax a baax dañuy dugg ci li nga xam ne moo di actualité ndax kat dañu koy faral di def chaque jour bu ñu waxtaanee si jaar jaar bi dañuy am mbégte waxtaan li nga xamante ni moo tamit actualité la waaye dañu koy doore rek ci làmb ji nga xamante ne ni xew na fi muy diggante Balla Gaye ak ki nga xamante ni moo di Bombardier naka nga ko gisee. làmb ji man newoon naa duma ci wax. lu tax nga waxoon ne doo ci wax. ndax tax lu ma ci wax. Mm-hmm. làmb dafa dawal dafa difficile. Mm-hmm. su fekkee yaa ngi dem di bëri ji. Mm-hmm. da nga ji ma wut def ki sa yaram. protège sa yaram bu baax. Balla Gaye gàllaajam a toj. moo toj. lan moo toj bu gàllaaju ah, gàllaaj. ah xam nga ne gis nga ko ni mu daanoo. te ba muy jógee këram. defoon na ne day daan. amoon moom daanu na fi moom. daan na fi moom bu baax a baax. maman mën ñoo xam lan moo toj ba gàllaaju Balla Gaye ci sa ci xalaat bu gàll. ah est-ce que dafa gis kii dafa rek moom du takkul dara wala deful dara ma tey wax nga ne Balla Gaye ni nga xamante ni moo di xaw ma cumbukaayam moo baaxul naka nga def ba xam Balla Gaye cumbukaayam baaxul. Balla Gaye dëgg yàlla man bëgguma woon a sax seeni bagages. Mhm. mais nit ki boppam da ngay war a wàññi moytu bët. Mhm. bët baaxul bët lu mu mhm. laal mu yàqu. te xool ay àndandoom ak ñi muy àndal ba xam. waaw. Ah. maanaam da bëgg a wax ne si entourage am daal. entourage am am na lu ci tax suuf. Mhm. mais maman Fama jouru combat bi gis nañu euh, li nga xamante ne moo di cumbukaayu Balla Gaye di tàq jëm si kaw lan moo indi loolu. ah dëgg la gàllaajam dafa toj. gàllaajam gàllaaju Balla. dañu xool ci seen biir waaw fa toj. mais man damay faral di dégg chaque jour ci wéyu bel yi ñu naan Balla Gaye bëre bu mu bëre ak ki nga xamante ni moo di ni loolu moo ko soo sooxe li mu nekkee nii. ah déedéet ndax Yékini moom bëri naa moom ba pare pare na ca bu yàgg ma nga tëdd këram. Mhm. waaw loolu Yékini defu ci dara. Mhm. d' accord combat bi bu mu jàllee déggoon nañu ñi nekk ci entourage Balla Gaye newoon ne ko bul dellu fi nga xamante ne ni moo di États-Unis mais teewul mu dellu foofu est ce tamit jotutoon mu toog ci réew mi fi nga xam ne foofu lañ ko ne mu toog foofu. ah moom comme que day liggéey na liggéey rek. loolu moo waral mu dellu. waaw gisoo woon ko ne mu toog fii fekkee ne bii dellu bi moo gën ci moom moom seet na ne foofu la mën a amee lu mu am bëgg am mu dellu. d'accord léegi tey dégg naa ci say biir wax nga ne Balla Gaye ay ci mukaayam moo moo moo toj fi mu nekk nii. Mm. naka la mën a defaroo waat parce que am na combat yaakaar naa ne ak Boy Niang. na defaroowaat rek na defaroowaat rek la toj toj na ba pare man ma defaroowaat rek te góorgóorlu. naka lay def bu ndax Balla xale la. Mm-hmm. waaw na defaroowaat rek. lan nga yaakaar ne tey moom noonu la war a defaroo. fa muy jaar ba defaru ñoom seen gàllaaj yi liñ leen di ñi leen di jox seen gàllaaj nañ ko seetaat na seetaat ki ko jox ay gàllaajam. mais maman est-ce que ko xamoon dinañ bàyyi gàllaaj bi toj. ah bu ñu ne bu ko xoolee dinañ ko xam. Hmm. ah xooluñu ko de ñoom ñu ngi ci biir làmb ji rek. xam nga itam nit buy bëree moom bëree na rek. ñu hmm. ngi ànd ak ay nit rek te kenn mënta jaani kenn. Hmm. ah loolu la. d' accord d' accord euh, tey gis nga Balla Gaye dina am victoire si kaw euh, ki nga xam ne moo di Boy Niang wala. moom seetu ko moom wax dëgg yàlla. gisoo ko. gisuma ko de. Mm-hmm. Mm-hmm. boobu moom dugguma ci moom. Mm-hmm. lan moo tax bari woo ci xam-xam. da ah, bii paase nii sama doom jaa ngi ni taxaw maa leen na kii mooy daan. Bombardier waaye bii moom dugguma ci moom duggaguma ci it. waaw. waaye di nga ci di ko xool. waaw bu soobee yàlla su ma paree ci li may def dinaa ko xool. Mm. Ah. xam naa kon boo koy xoolaat ñun ñu ñun bu ko defee ñu ñëw rek comme ça nga wax ñu li nga xam ne mooy am ci combat boobu. waaw baax na baax na d'accord Modou Lo Ama Baldé. waaw moom la amal balde. Mm-hmm. Mm-hmm. seen combat taxaw na. waaw baax lan nga ci gis. moo man dama la seetaguma ci benn. seetagoo ci benn combat maman nag ni nga seet ci combat yi. ah waaw waaye nag xam nga combat boo seetagul mënoon na jàkk nii rek nit daal di ne. combat bi ñii de kii mooy daan kii mooy def nangam il faut nga xool ko. Mm-hmm. man sama tenue ji day wisit de. Ah. ma tenue ji day seet. moo tax du ma ne rek jàkk ni na ko nangam ak nangam. d' bu ñu génnee ci li nga xam ne moo di combat dañuy ñëw ci actualité loolu tamit actualité la muy mbirum li nga xamante nii moo di sëy yu bëri yi nga xam ne nemmeeku nañu ko muy tas rawatina ci ñi nga xamante ni moo di artistes yi xëy na ci ñoom la gën a fesee naka gisee loolu. ah loolu seen waajur rek ndax man sama doom a ngi nii boo koy defal réception am génneew ma ko génneew ma ko ci rajo réseau mm-hmm. yi. ko ndax bët baaxul. am na lu bari loo xam ne li bët yaa ko yàq. Mm-hmm. ak coow ak làmmiñ ku ko dawul. Mm-hmm. sa dara du baax. waaw tey da nga gis ne daal maanaam sëyu artistes yi làmmiñ moo koy tas. a ah, bari nañu bur wi de. Mm-hmm. man na ñime ñu ma li ñuy def dëgg yàlla man. Mm-hmm. man moom bët ak làmmiñ moom. Mm-hmm. ñime ñu ma ko man. dañuy jël exemple ci ki nga xamante ni moo di Mbathio Ndiaye sëyam tas na mais coow li bari na naka nga ko gisee. a ah, Mbathio da dem defaroon rek bu diwaat jëkkër comme que loolu la ndax tey itam bu fekkee ne bii ndog la ci moom. mu xam na ndog la mu gisee ko noonu. Mm-hmm. ak keneen ku mu manti doon ndax sëy dafa tey bakkan la rek. Mm-hmm. sëy mm-hmm. sëy bakkan la rek. waaw. d' accord gisoon ñu si bëri est ce que xaalis moo leen ci jugal wala tey bi euh, dafay tas euh, si si si maanaam àpp bi dafay jot rek mu tas wala xaalis bi moom mooy jeex rek sëy bi tas. loolu wax naa ko avant may def lii nañu bàyyi xale yu góor yi nga xam ne dañuy liggéey ba sonn jox leen seen xaalis. wutee leen appartement lu ñu bëgg ñu jëndal leen ko. ñu sëy ko ñetti fan jóg fax àq ju rëy rëy la. man dama ko def sama doom. Mm-hmm. du ma ko defloo sama doom mm-hmm. waaw. d'accord ñu gis euh, sëy bi nga xamante ne ni takk nañ ko fi keroog muy diggante Ngaaka Blindé ak Fatel naka nga gisee sëy boobu parce que seetkat yu bëri taxaw nañu ñi am nañu ci ñu ci wax yow suñu yaay booy lan nga gis lan nga si ko mu góorgóorlu rek te bañ a déglu waxi kenn ndax fii moom Sénégal mm-hmm. comme moom jëkkëram gisante woon nañu bu yàgg. mu bëgg ko mu bëgg ko. góor góorgóorlu ji ma sëy. man de man pharmacien de lu may def lu nekk su ma gisee sama noonu takku ca da nangam. Mhm. dinaa ca góorgóorlu ba futteeku. Mhm. na góorgóorlu ci sëyam rek. lan nga gis ci sëy bi dina yàgg wala. sëyam moom moom wax dëgg yàlla ñaar ñu bëggante kay sëy dina yàgg. Mhm. bu ca làmmiñ jógee ak def-def dina yàgg. faqastalu yi ngaa ko di faqastalu fan yi di waaj a jaan ban signe lay joxe. benn tànkam bi xaw a mel ne lu damm. ah nañu daal ki seen bopp. signe bi signe bi la signe lan la. ah yàlla man da gis naa ko tànkam benn bi. mel ne lu xaw a kii. d'accord yaa booy gis nañu fan yi ngaaka ba mu takkee ki nga xamante ni moo di Fadel ba léegi sëy ñi nga xamante ni mu ngi koy joxe saa buy jugee rek day faqas talu naka nga gisee loolu sëñ bi ak lan la lan lay joxe ah xanaa bu bu jógee rek mu defar wala yaayam defar ko mm-hmm. ndax xale la mm-hmm. te àddina bi moom coow li bari na de mm-hmm. man naa foofu laa mën a yee moom coow li moom bari na moom dëgg yàlla. mais mënoo ñëw doomu jaamur la mën ma koy jox mën ma koy jox benn pression. li ëmb fakastal boobu ndax yàlla mën ma ko joxe. Mm-hmm. ndax xaw ma la ko fakastal xaw ma la ci yaramam. Mm-hmm. waaw d' accord bu ñu jógee ci <laughs> li nga xamante ne nii moo di. sëy lu ma seet laa mën a wax. Mm-hmm. seetagoo ko. déedéet seetagoo ko mais am nañ njort ko da di ko seet. waaw ah, su ma fii daal dinaa seet. Mm-hmm. incha allah kon ñu ngi xaar résultat ci suñu yaay ji waaw baax na soobee yàlla yaa bu ñu jógee ci loolu dañuy dugg ci li nga xamante ni moo di kaan bi suba laakaar naa si la sénégalais yi di football lan nga gis yàlla ndam li ñëw ci ñun kàttan suñu borom ndax suñu njaboot gi suñu mm-hmm. sayal Sénégal day jëm kanam mm-hmm. yàlla ndam li ñëw jàpp nga ne Sénégal dina jël coupe bi jàmbaar lañu jàmbaar lañ de jàpp nga ne Sénégal dina jël coupe bi ah wax yàlla seetuma ko seetoo ko waaw seetuma ma ko de. d' accord naa la lu ma seetul fii. Mhm. du ma ko ji ma wax doomu aadama est ce que mën nañoo koo seetal foofu. ah ndigal ba ma pare. déet mën nga koo seet noonu kay. nga ah, jàkkaarloog eh, caméra bi déedéet déedéet nii mënuma la seet. waaw maal naa waa jàkka yow de ba ba nga seet ay kii football. na mën naa laa bàyyi nga seet. mu xam max bi <laughs> ndax Sénégal dina gagné coupe bi wala. <laughs> yàlla suñu borom rek a xam nag. d'accord suñu borom daal bu soobee yàlla yonti ba yàlla na indil suñu mm-hmm. mm-hmm. naan Sénégal dina jël coupe bi dem nañu ba sénégalais yi naan seetkat yi mën nañu téye seen gémmiñ yi ci li nga xam ne moo di kaan man wax dëgg yàlla moom nee naa leen yooyu moom dugguma ci dinaa ñaan nag ndax yaay laa. Mm-hmm. damay ñaan bu kenn dul yëg di joxe sarax. Mm-hmm. bu kenn dul yëg. Mm-hmm. man dama koy def. bu ñuy football damay saraxe bu ñuy bu ñuy bëree damay saraxe Waly Seck sama doom gi sax dama koy saraxeel. Mm-hmm. man damay saraxee. loolu dinañ ci ñëw incha xam naa si beneen ke beneen euh, euh, partie bi lay nekk. comme da ngay saraxe. Mm-hmm. Euh, ñaan nañu nga saraxe yow tamit comme ça sénégalais yi mën a indi coupe bi parce que yéen yéen si mën a jàpp daa mel. Ah, damay saraxe de. Mm-hmm. bu ma gi bu ma jéggi ma xoolee daal. bu laagee sarax dinaa ko joxe mee du ma ki nekk di wax. d'accord bu ñu génnee ci loolu dañuy dugg ci li nga xamante ni moo di élection yi maire yi gis nañu fi mu nekk nii sacrifice yi bari na lool sa gis-gis. émission. maire yi élection yi man nee naa leen ñi ñëw fii ci man ñu bari ñëw nañ fii ci man. ñi xëccoo maire yi ñëw nañ ci yow ñëpp ñi samay doom lañu. Mhm. fi dëkk ci dëkk bi. Mhm. dégg nga. Mhm. Sénégalais laa ni ñëpp. dañuy yi sedd. ki yàlla war na ko teg te mu sedd guy. léegi moom yàlla na fi yem. na sedd daal. élection yii. yàlla na ko yàlla seral. te lu ci waay mën a saraxe. nga saraxe ko. dugub ji. mboq mi. Mhm. nañ koy yel di def. Mhm. di saraxa ndox mu sedd mi. Mhm. waaw loolu daal laay ñaan bi loolu la. waaw sarax bi loolu la. d' accord ñu ñëw ci yow est ce garanti nga leen que ne dinañ euh, falu fi ñu nekk si gox yu ñu nekk. di nga. ñu ñëw ci yow mën nga leen garanti que dinañ falu fi ñu nekk. waaw man ku dugg sama néeg bi li ma war a def ak yow dama koy def ak yow. incha allah rabbi. ñoom am nañ dinañ am mën nañoo am yaakaar ci yow ko dinañ falu. man. bu soobee yàlla ko fi ñëw. te jox ma sa bopp. dina am lu ma def ak yow. waa d'accord yaa booy ñan ñooy xëccoo mairie yi ñi ñëw ci yow kan kan la. man ñi fi dugg bari nañ de. comme kan ak kan man maa génn déwuma fenn. man déwuma fenn sama lii mooy sama kii. Mhm. waaw comme kan ak kan ñoo ñëw ci yow. bari nañ de. Mhm. bari nañ wax dëgg yàlla mën nga ñu cee limal ñett wala ñeent. lu tax loolu. ah politiciens lañu ay politiciens moom. Mhm. te ñëpp samay doom lañu. ci lim kenn. <laughs> d'accord yaa booy ku la dégg dañuy faral di dégg ci say gémmiñ tànk ba léegi yaa ngi naan waali waali waali seen diggante yéen ñaar naka la demee. Wally moom maa ko bëgg rek sama doom la. Mhm. Wally ba mu commencé woy ba nëgë mhm. man maa ko bëgg ndax dafa xaw a nuróog sama doom. Mhm. ma bëgg ko nag lool. dem naa ba këram mais gisuma ko soxnaam rek laa fa fekk. soxnaay dara. man maa bëgg Wally Wally maa ko bëgg ba buy tëgg. dama koy defal damay toog fii seet defal ko sarax te du ko yëg. waaw mm. ah, yàlla def mu bëgg ko. génneel ko sarax te moom yëgu ko. d' est ce que nekkul kon sarax yi nga koy génneel dafa joué loolu ci li nga xamante ni moom la waal di woote. parce que ah, waali décembre ba léegi mu ngi woote fu mu woote fu nekk dafay fees. ah incha allah rabbi sama doom jooju macha allah fu mu nekk du fa kastalu na tëgg baraxas. Mm-hmm. dina tëgg baraxas. Mm-hmm. waaw. d' lan nga jàpp ne mooy secret waali bu nekkul si yeneen artistes yi. secret bi dal rafet xol. lan mooy laa gàllaajam mm-hmm. lu mu am bokk na ko nit ñi mm-hmm. bokk bëgg ñi nga xam ne dañoo handicapé mm-hmm. bëgg leen lool waaw d'accord loolu moo tax nga euh, euh, ki féetewu ci côté Wally lan moo tax suwaa bi doon Wally ba ñu doon Sidy Diop ah man de Wally moom bëgg naa ko Wally moom naka jekk sama doom la lan moo tax nga choisir Wally sans euh, choisir Sidy Diop ah sama doom la Wally sama doom la man maa ko bëggal sama bopp mm. ah man Wally nga gën a bëgg ko Sidy man daal moom moom laa bëgg moom wax dëgg yàlla moom laa gën a bëgg moom nga gën a bëgg ko Sidy waaw <laughs> bu ñu génnee ci li nga xamante ni moo di sa diggante ak mu nekk diggante boo xamante ni diggante bu rafet la xëy na moom dina la mës a xam wala di ngeen mës a daje si benn bërëb incha allahu rabbi dañuy dugg ci li nga xamante ni moo di secret jaaro bi ak secret ndomb bi yaakaar naa ne ñëpp ñu koy xëccoo lan moo nekk si biir. laaj nga woon lu ma ne ndomba gi. Mhm. dem na fii ba Europe fu nekk dem na fa. Mhm. ak jaaro bi. Mhm. ñoom xam nañ ko bu baax ñu ngi koy jël si bu baax. jaaro bi ñu ngi koy jël si ndomba bi ñu ngi koy jël si. macha mhm. allah jaaro bi foqat la ndomba bi wuute la. bu dee lu bon la da nga koy wuute. ah bu dee lu bon la da nga koy wuute mhm. da nga koy wuute. ngay ñëw ñu ne nangam ak nangam amal na fi. Mhm. doo wuti mukk ñàkk. jaaro bi. lépp loo xam ne yaa ngi koy lijjanti ji da nga koy foqati. Ah. d'accord jaaro bi dañ koy jaay wala nu mu demee. bi dañ koy jaay. dañ koy jaay dañ koy dañ koy wecceeku nga laaj kenn du la jaay dañ koy wecceeku. Mhm. waaw si bëgg ku nekk nekk fi nga xamante ni nekkoo biir Sénégal naka ngay def pour jot si. dañ koy defal ba mu baax yónnee la ko GP bi moo ko yóbbu. Mhm. Mhm. lan mooy secret bi yeneen sarax yi. yeneen sarax yi yi may def man li secret waaw. boo ko bëggee ngam nag dangay ñëw fii su may saraxe dinaa la woo. man damaa lambul tey boo ma doon defal ban ban. su may saraxe dinaa la woo nga ñëw ah dangaa lamb. man ku lamb rek laa mën a waxal. Ah? su ma la sangatee yow. Mm-hmm. jox la li ma lay jox. Mm-hmm. jox la bayre bi. Mm-hmm. ah bayre bi foor na de. nañ la takk takk la nu muy nan ngay def ban lan nga koy jox. ku bëgg mu takk la. Mm. man la koy defal. bu dee dalaa la dig di la dig rek takk. soo ñëwee fii dañ defal loo xam ne li bu soobee yàlla baas bi di ko samp. bokkoo ci seetkat yi nga xamante ne dañuy ñëw ñu sa facturé la ay million wala 2 millions. ah déedéet nag man bokkuma ci loolu moom wax dëgg yàlla. man maay borom juróom-ñetti guy yi. ni mhm. bi ginnaawam yaatu. Mhm. li may laaj bariwul. Mhm. ci ñaata nga faral di laaj. man. dama ah, laaj li may laaj man. li ka duma la ko wax ndax samay client laa koy waxanteel. <laughs> non dama bëgg client yi gën a ñëw xëy na sama genre ne ni euh, suñu loxo jotul suñu ginnaaw est-ce que buñ ñëwee ci ci di ñu defal. yow moom boo bëggee takkal boo ñëwee ba ma joxee million rek ma liggéeyal la. 1 million. d'accord sama far bi xam naa sama faru rab bi dinaa ko wax mu jox jox la 1 million yaa booy dañuy wax ci digganteeg suñu Fallou la demee. ah sëñ Fallou dama ko bëgg yaa ngi may laaj lu ma bëgg. sëñ Fallou sama lépp la. waaw dama koo bëgg. bëgg ko ba ñaan ko mu raxasal ma sama bii bi defal ma kom caat muy sëñ Fallou muy sama moom caat. Mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que te lu ma ko ñaan may ma ko. Mm-hmm. comme yow mag nga. Ah. xëy na mën nga ne génération boobu fekkee nga ko mos ngeen gisante wala mosu leen gisante wala mos nga am nataalam maanaam feeñu la. feeñu na ma. kañ gis naa ko. waaw sëñ Fallou moom sama xarit la moom. Mhm. Mhm, maa ko bëgg la feeñoo lu mu la wax. ba ma feeñoo maa am ba diis rek mu seeñu ma ma xam ne xel Alaaji Fallou la am. Mhm. Ah. d'accord ñu si bari dañ naan diw feeñu ne ma wax na ma lii wax na ma laa bu mu la feeñoo waaye waxu la dara. man duma bokk ci ñooñu man. mag du fen. te yonent yi ak bu xaabi yi kenn wala leen a fenal. man duma naan kii gis naa ko gis naa kaa. te gisuma ko. sëñ Fallou ñaata yoon la la feeñu. li ma feeñu bari na borom dindi sama nit la. Mm-hmm. li ma feeñu bari na. Mm-hmm. waaw. fan si sa néeg walla fépp fu may neloo mi ngi may feeñu dem naa Touba tëdd di nelaw mu feeñu ma mm-hmm. waaw. mais bu la feeñee yow da ngay gis nataal bi damay kontaan waxtaan damay kontaan su ma saa ma gisee saa yu ma ko gisee damay kontaan mhm. dama koy gisee moo may neex mhm. waaw boo yaakaar naa ne waxtaan bi am na solo kon dañ mhm. lay bàyyi rek nga tàggatoo tey lan mooy nekk sa kàddu gu mujj ci émission sama kàddu gu mujj mooy ñaanal rek nag Sénégal lépp sedd guy élection yi neex ku war a toog toog kenn bañ a gaañu nu daal laa ñaan mbëri seen bëri yi muy bërëb jàmm ñun ñëpp doomu Sénégal lañu. loolu laay ñaan ci mhm. sama réew mi. Mhm. réew mii nga xam ne réewum jàmm la. Mhm. nañ leen ko def réewum jàmm. loolu daal laay ñaan. merci beaucoup yaa booy. Ah, waxagul si li kii li mu ko wax est-ce que moom fàtte wu maanaam góor jigéen bi nekk góor jigéen bi ak kadeeru oustaz yeeg ba ci moom léegi xam nga nan nga koy def hmm. da ngay bàyyi ma posé ko question bi comme ça mu xam pare nga daa mel ni ay parewu ma de maa ngi to di la di yaa booy dañuy ñëw ci point bu mujj bi nga xamante ni point boobu la ñuy euh, tëjee mhm. maanaam mbirum li nga xamante ni moo di góor jigéen ñi gis nañu fi nga xamante ni moo di si réseaux sociaux yi ñoo xamante ni dañuy yàq deru oustaz yi di wax ci diggante ki nga xamante ni moo di Mbathio Ndiaye ak ki nga xamante ni moo di ab sëñ Abdoulaye Diop Khass ñi dem ba naan euh, sëñ Abdoulaye Diop Khass dafa takk Mbathio takku suuf nan nga gisee loolu ak ban conseil nga leen di jox ah ñu am fulla ak fayda parce que góor jigéen war ta mën a yàq deru kenn ñoom yàlla lag leen ba pare mhm. ñooñu du ma Mm-hmm. loo man tax ma bàyyi laa yàlla. Mm-hmm. xam nga ko sax der taq ba pare. Mm-hmm. nga bëgg taqal takkal nit ki. du ma du may sax bunt boo ma ko defee. waaw. loolu jàppoon na ñoom am nañu accès loolu ndax bu ñuy wax kenn du leen freiné. bu ñuy wax kenn du leen freiné parce que lu leen di freiné ku bon ba pare bëgg maa taqal du ma lax leen dama lay bàyyi yàlla. ah man boog man de ku jógante di ma wax dama lay bàyyi yàlla mais du ma lax leen. zaar yi fan nga xalaat ne mën nañ fee yóbbu réew mi. fan nga xalaat ne won na faa yóbbu réew mi. yóbbu réew mi. Oh, réew mi ah. waaw lii nii. Hmm. mbirum góor jigéen ak coow lii. Hmm. ah gisoo ko ni mu yàq réew mi. maanaam. ah réew mi kay yàqu na parce que ba élection jotee xeex am bañ nañ ko ba takk yi sax dañ ciy xeex man barki dem gis naa takk goo xam ne gi ñu ngi xeex pour si dem ak dikk. jàmm amatul fenn mi kay yàqu na. xanaa ñun ñooy doogaat ki suñu bopp defaraat suñu toogaay. xoolaat xam ne àddina amul solo. waaye réew mi moom réew mootu ko defar. yal na nu yàlla nag sàmm. amiin sàmm mbooloom jullit. amiin yal na nu sëñ Fallou taxaw. waaye réew mi moom. Mhm. ko yóbbu rek jiima xool sa bopp defar sa bopp. Mhm. kese. <laughs> waaye réew moom jagatul jagatul d'accord jërëjëf yaakaar naa ne nii lañ leen ko waxee woon tey nag ñu dalaloon ndaanaan bu mag koo xamante ne ni yaakaar naa ne Sénégal ñëpp war nañu koo xam fi mu nekk nii eh, koo xamante ne ni yaakaar naa dégg ngeen xam-xam bi nga xamante ne ni wax na ko képp koo xamante ne tamit bëgg nga koo seet si boo jokkoowee ak ñun rek incha allahu rabbi dinañ la indi ba fi nga xamante ne nii foofu la nekk fajam seerul te li mu koy defee tubaarkaala macha allah li jigéen ñi bëgg ak li góor ñi bëgg yëpp mën na ko maman ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jox la rendez-vous ba beneen yoon incha allah allah ak wasaare société. <laughs> jaajëf yàlla yàlla defal jàmm. allah moom yal na liggéey bi barkeel.